مولاي صل وسلم دائما ابدا على mbokki àdduna wér képp maa ngi ziar ñëpp di baalu ñëpp àq di leen baal àq di wax ne yàlla nañu yàlla dolli baal ñu xam nga ñu yàgg a fekkee tabaski ci jàmm ak salaam maa ngi baalu ñëpp àq kenn ku ci nekk di wax ne suma fan si suma xarit yi suma dëkkandoo yi suma mbokk artistes yi képp ku yor bakkan di nooyi pagaay mi ngi lay baalu àq te di la baal àq di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole jégal di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi suñu borom yëkkati leen si jàmm ñi nga xam ne ñoom ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla suñu borom tamit dafa leen jàmm ba ñu mën a dellu si seen activité di baalu àq képp koo xam ne rek soppee pagaay nga di wax ne yàlla ñu yàlla jéggal ah defal ñu jàmm tabaski ren bi yàlla sunu boroom defal ñu mu doon ay tabaski yu baree bari yu ànd ak jàmm xéwal ah, ñi ci amul xewal yàlla defal leen xéwal donc ñi am xewal sunu boroom gën a dolli seeni xewal man pagaay mbay maa ngi baalu ñëpp àq di wax ne yàlla nañu yàlla boole jéggal. o nijaay dal naa ci o nijaay oo nijaay bëgg naa ki oo nijaay oo nijaay nopp naa kii xoolal ni ma nobee gel bi xoolal ni ma bëggee gel bi bëgg ko joy ci moom nijaay ne ma bàyyi ko xamul lu ma yëg ci moom sama mbëggeel ëpp na ma doole a nijaay li lu ko waral a nijaay bëgg du bañ bëgg naa ñu ànd njaareem sukaabe bëgg naa ñu lang su ko defee te ñuy waxtaan buy wax ma di ko déglu bu jugee di dox ma di ko yéendu buy ree ma daa di kontaan bëgg naa bëgg naa oo oh yaay bëgg naa bëgg naa oo oh baay man bëgg naa sax naa ma rey xaale bi jaaral naa ma ko sax naa ma rey merci salli wa sallim daiman abadan ala habibi